asalaamaaleykum sama gaañ ñu ngi leen di bu baax baax fii ci Rewmi Sport àllarba le 31 ñëw ci xibaar yi bu fekkee ne abonné goo ñoo ngi sàkku nga abonné partagé lii di vidéo bi activé cloche de notification pour que vidéo ñu dugal nga bokk si ñi koy njëkk gis fii ci Rewmi Sport gaañ aussi bu leen fàtte di like c'est important pour lu jëm ci wàllu seen wi xibaar yi ñu ci ànd ak Serigne Cheikh Alamine Mbacke borom fas gi gi def ci nit bëri boo xoolee ci senegal mën ngaa gis fukki nit ak juróom wala ñatt téeméeri nit ak nangam ñoo xam ne ñëpp ñu ngi toog ku ne di wax néew kàttan man néew kàttan ñaari cabinet laa ci yor ñu bari nag dañ may woo ne ma yow la sëñ Cheikh Al Amine Mbacke am yu ñuy leeral waaye fii laa ciy leeral àdduna bépp dégg néew kàttan ñaar laa ci yor bi ci njëkk mooy fas gi nga xam ne fasug néew kàttan la di fasug ndono amul kenn ku mos a ñëw ne Al Amine jox na ma fas gi te taqaliku ma néew kàttan li ma defar ci kër ëpp na lu mu néew néew mën na mën na junni kër. ñoo xam ne fas gi moo tax kër ga am jàmm. la ma defar ci sëyit fas giyee tax. kon nag beneen bi bi ma ci yoraat mooy cabinet Xelcom Kattan. xel Xelcom Kattan xeetu attaaya booy jëfandikoo ndax loolu li tax ñu sabab ko ñu ñu defar ko lakka ka sabab ki nga xam ne yàlla dogal na ne maanaam fonkut ay téere wala yu mel noonu. waaye bi ci gën a wér ba gën ci wér bi nga xam ne moom du ñëpp ci mën a jot. waaw du ñëpp mën a jot waaye mi ngi nii képp ko ci jot. néew kàttan da nga tàkkoog moom ak at yoo mën a am te dootu la dal ba faw man sëñ Cheikh Al Amin Mbacke képp maa koy joxe ku ne nag mën ngaa gis mu yoruk fas di wax waaye sëriñ Cheikh Al Amin jox na ma fas tàqoo maak néew kàttan ba ëtt day tukki doo ko dégg fas gi daal jàpp nga daal moo gën ci néew kàttan ni ki day takk rek di sëy at yoo mën a am moo xam sa awara day nooy di lax di dellu ngay gaaw a yegg santiroo sa bopp effet bi gàtt bu soobee yàlla boo ko takkee lu néew néew néew néew ñaari waxtu mën nga kaa sëy ñaari waxtu. man nga kaa sëy lum néew néew néew te mi ngi aju ci yow nag. xibaar yi dañ koy commencé fële ci Olympique de Marseille wax ci ki nga xam ne moom mooy Carboni Carboni gaañi euh, ki nga xam ne moom mooy directeur sportif daanaka bu Inter de Milan daal di ne dëggal euh, transféré kii di doomu Argentine bi de Inter euh, à donc fële ca Marseille oui ki nga xamante si ni moom mooy milieu de terrain bi. waa marché ñu ngi yaakaar ne dinañ mën a officialiser mbir mi ci weekend bi donc samedi bi jàpp ci dimanche bi nga xam ne moom la ñu dëgmal marché dina am kenn ci talent yi ci fàttali nag euh, équipe bi di Inter dina garder contrôle ci jour bi maanaam dina ci am option même bu fekkee ne equipe bi nga xam ne mooy marché def ko jëndee pour 36 millions. équipe bi di Olympique de Marseille donc juboo na ak kii di Edin Ketia donc di attaquant bi nekk ci club boobu di Arsenal. ki nga xam ni moom mooy joueur bi donc pare na pour signer contrat bu toll si juróomi at léegi nag li des moom mooy diggante équipe bi nga xam ne moom mooy Olympique de Marseille ak équipe bi nga xam ne moom la ñuy tuddee Arsenal xëy na Arsenal bu fekkee ne signe na benn attaquant xam nga Arsenal apprécié nañ attaquant ku jamono yu ko que boobaa dina gën a faciliter le transfert mais en tout cas benn négociation amagul diggante Arsenal ak Olympique de Marseille. transféré ki nga xam ne moom mooy Keylor Navas fële ca Monza mujj na am problème way après donc bi nga xamante si nii daanaka juboo amoon na diggante Monza pour que kii nga xam ne moom mooy Keylor Navas ñëw pour remplacer finalement donc désaccord donc la ñu mujjee ki nga xam ne mooy Keylor Navas actuellement mu ngi continuer nekk ci marché de transfert yi nga xamante si nii libre lañ kon ki nga xam ne moom mooy en gardien de but bu Real Madrid bi xaw naa sori donc pour signer ci club boobu noonu di Monza dañuy continuer ba tey daal di dem fële ca Atlético de Madrid comme ni ñu ko annoncé woon keroog le plan B d' Atlético de Madrid c' est ki nga xam ne moom la ñu tuddee Slot di deuxième meilleur buteur championnat bi gaañ na xam ngeen ne euh, ci début ba. dof bik moo naroon dem Atlético de Madrid Slot dem fa li nga xam ne Sorloth euh, Sorloth pas Slot Slot moom mooy entraîneur bu bi donc Sorloth dem fa li nga xam ne moom la ñuy tuddee euh, ca AS Rome finalement que ki nga xam ne moom mooy dof bik moo mujj dem Rome ki nga xam ne moom la ñu tuddee Sorloth euh, mi ngi ci yoon donc pour mën a dem fa ne moom ci Atlético de Madrid waaye négociation yi donc avancé na bu baax a baax Atlético de tamit négociation yi mi ngi avancé bu baax a baax diggante moom ak kii di Chelsea. concernant le dossier de Ganor Gallagher donc di joueur bu am solo ci effective bu Chelsea bi parce que la saison passée yaakaar bu amee ab joueur boo xam ne moo doonoon vraiment xoolu Chelsea moom la woon moom ki nga xam ne moom mooy dof kii di euh, Gallagher moom ak si demee ne kii di euh, Cole Palmer donc transfert bi dina dikk Atlético de Madrid 40 millions le donc de ki nga xam ne moom lañ tuddee Dani Olmo OFC Barcelone peut-être moom it dina xaw a tuuti. parce que Barcelone li nga xam ne moo doonoon li nga xam ne mooy bëgg-bëggam mooy boole Nico Williams ak Dani Almo mais en réalité Barcelone ba tey mënagut a engagé loolu parce que ba tey jii ne FC Barcelone li muy xaar jotugu ci moo xam ci côté xaalis donc ki nga xam ne mooy RB Leipzig nag mu ngi continuer di xaar Barça parce que ñoom 60 millions la ñu bëgg ñoom équipe boobu di waa RB Leipzig. dañuy continuer waaye tamit li nga xam ne day wane ne RB Leipzig xam nañu ne à tout moment. FC Barcelone euh, wala boog baax na mën naa jël kii di Dani Olmo moo tax ñu teel a wuti remplaçant donc doomu Maroc bi nga xam ne moom la ñu tuddee Bilal Al Khomous Al Khomous donc di euh, football ci benn club bu ñu tuddee Gang donc di benn club bu nekk euh, fa li nga xam ne mooy ca Belgique. donc équipe bi nga xam ne si ne moom la ñuy tuddee waa RB Leipzig pare nañ pour teg ci table même lu mat 30 millions pour récupérer doomu Maroc bii nii mais ci kaw. ki nga xamante si nii moom la ñuy tuddee kii di Dani Olmo moo jigee ci club boobu di RB Leipzig toujours donc ci mercato bi ki nga xam ne moom lañ tuddee Joao Félix euh, dina xaw a compliqué ci Aston Villa comme ni ñu ci dikkee woon keroog wax leen Aston Villa donc vraiment euh, bëgg nañ ko trop mais dafa xaw a jafe ci ñoom économiquement donc Benfica aussi mi ngi tànte mi xaw naa jafe ci ñoom mais nag bëgg-bëgg joueur bi en réalité mooy retourner au FC Barcelone way delluwaat FC Barcelone mooy bëgg-bëgg ki nga xam ne moom mooy Joao Félix ek mi ngi fippu mais nag euh, ci ay mbiram Barcelone déjà priorité mooy kii di Nico Williams après Dani Olmo après donc Joao Félix peut-être ak yeneen recrues donc di dog di ñëw ki nga xam ne si ne moom mooy Carlo Ancelotti est-ce que pare nga pour jënd ab défenseur central kii di leen yoro Real euh, beneen défenseur central bu fekkee ne kenn jugee fi loolu moom mooy kaddu yi nga xam ne Carlo Ancelotti tontu na ko waaye nee na Real Madrid du recruter beneen attaquant beneen défenseur central malgré que jotuñ ci kii di leen yoro c'est parce que ki nga xam ne mooy Vallejo mi ngi fi def na retouram Alaba lu yàggul dara dina di kat. malgré que dina raté début saison bi te kii di Joao Mané mi ngi fi Eder Militão mi ngi fi David Alaba kii di euh, Rudiger aussi mi ngi fi kon ci gàttal supporter Real Madrid yi nga xam ne dañuy xaar Real Madrid jënd ab défenseur loolu mën nañ kàjjal teg na le parce que seen entraîneur bi nee na Real Madrid du recruter beneen défenseur central am na laaj aussi buñ ko laaj bu ñëpp di laaj après xam ñu ne daaw kii di Bellingham daanaka pointe la doon jouer mais nag ren Mbappé dafiy nekk laaj nañ ko ko moom kii di Carlo Ancelotti est-ce que kii di Bellingham day arrière dem jël place close bi cross bi mais daal lam tontu mooy dina jege trop ak Sial bi kon nañu xaarandi ki nga xam ne mooy Bellingham encore une fois joué li ñu tuddee faux neuf xam nga position boobu noonu bu fekkee daf ko joué dina ko permettre donc mu mën a def li nga xam mooy les dernières passes waaye aussi tamit gagné li nga xam ne moom mooy les deuxième ballon et am na efficacité aussi bu ko permettre muy marqué ay but yu bëri bëri moom ki nga xam ne mooy Bellingham kon Bellingham postom bu fekkee ne dina am changement. ki nga xam ne moom mooy Rudiger ci entraînement bi gaañ na kii di André waaye daf ko gaañ booy bi yëlul sax bal kii di Rudiger ñëw dóor ko mbagg mi ba gaañ booy bi ci mbagg mi loolu nag Rudiger nee na ko da ngaa war a yokk li nga xam ne moom mooy sa sa athlète sa côté côté athlétisme donc da nga war di mbëkkanteeg défense yi donc Rudiger ni mu doon traité Harry Kane ni mu doon traité Victor Osimhen nga xam ne moom la ñuy tuddee Haaland noonu la continué ko traité booy bi nee na nag bëgg lu ko li nga xam ne moom mooy ab ay mais dafa bëgg booy bi donc teel a miin xam ne champion championnat boobu nekkoon di championnat Brésil bokkut ak li nekk fii kon Rudiger gaañ na ko gaañ bi nag garaawul mais nag mi ngi digal mu daal di gën a yokk li nga xam ne mooy doole ji. gaañ keroog wax nañ leen ne Pep Guardiola génie la donc keroog ni mu waxee dafa tiital Alvarez xam nga tamit Alvarez taxaw ne maa ngi réfléchir Pep Guardiola ne ko réfléchir ba noppee informé maanaam xalaat. ba xam damay jige si te war du ma fi jige Pep Guardiola ne ko xalaatal boo noppee nga wax ni li nga xalaat lan la booy bi dikkaat na nee na déglu na li Pep Guardiola wax waaye moom waxul dara loo xam ne si lu ñaaw la yàgg naa wax ne City club la bu mag yàgg naa wax ne aussi club la boo xam ne si kontaan na na sañ bu bi jeexee mu def li nga xam ne mooy évaluation jàngat biir saison bi ak wax na dëgg ne moom mooy lenu yoro ba tey jii nii li nga xam ne moom mooy jàngat bi nga xam ne machine yi ñu ngi koy def pour que ñu xam gravité bi leen jouram bi ba tey matagul donc waaye ki nga xam ne mooy li ñu yore nag la ci garaaw mooy ko xool leen ci côté droite bi ñu ngi ko gis noonu ay bekke donc lay génnaale mu doon loo xam ne lu inquiétant la pour les Mancuniens donc joueur bi ñu ngi xaarandi selon donc li nga xam ne moom mooy dernier source yi mu absenté wu lu mat un jàpp deux mois mais nag ba tey jii nii kenn amagul li nga xamante si nii moom mooy durée d'absence bi ci côté li nga xamante si nii moom mooy bilan si ru leen yoro bi Mark Rashford xam ngeen ne jour bu baax la mais dernière année yi bokk ne xam-xam ngeen ne Rashford dafa doon koo xam ne dafay jël affaire sociale ak njàng meeg yooyu jiitaloon ko ci carrière am moo ko yàqaloon lu bëri bëri mu bëgg dellusiwaat mu am lu ko të mais nee na daal li mu bëgg mooy gagner Ligue des Champions avec Manchester United gagné aussi li nga xam ne moom mooy euh, championnat avec Manchester United et lu mën a nekk la parce que gis na ne dirigeant yi ñëw di société Ineos si njiital kii di Sergio Gnabry ak kii di Ten Hag ñu ngi liggéey lu am solo loo xamante si ni pare nañ donc pour am ay coupe yu bëree bëri ay année yu yàggul dara ba tey kii ngi di Amat Diallo gaa ñi xam ngeen Amat jaalo fan yële weesu Ten Hag wax na ne Amat Diallo année bii ni anem la maanaam daal année bii nii l'Ivoirien dafa war a exposé dafa euh, war a exploser la war a def wane boppam donc Amad Diallo moom ñëw na tontu na ko nee na ko man sax li ma bëgg mooy sama carrière bi yëpp ma joué ko fii ci Manchester United loolu nag mooy waxtu bi de gëstu waaye nag ab club bu mag bu tane Manchester United pour que nga joué fii ci durant carrière bi yëpp faaw ngay gën a liggéey donc mu wàññi bilingerie parce que benn cat boobu kese la am mais génération kenn dàq ko ci football mais malheureusement li nga xam ne mooy côté physique bi daf k indil ay empêchement yu bëri bëri pour que mu montré li nga xam ne moo nekk ci moom moom ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Amad Diallo di doomu Côte d'Ivoire gaa ñi continuer leen donc di abonner partager c'est important pour lu jëm ci wàllu chaîne bi et je compte vraiment sur vous bonne nouvelle donc pour Liverpool donc kii di Gamoura à Liverpool donc c'est fait maintenant way mat na ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Gamoura yor la donc boo xam ne dina signé contrat am di yàggul dara Chelsea nag perte nañ un choix yow koo xamante ne donc Chelsea amoon nañ yaakaar ci moom bu baax baax ci académie bi mais après donc bi Liverpool présenté ko benn. lii di projet boo xam ne bu conséquente la ci la décidé donc ne du signé contrat ak équipe boobu di Chelsea kon ki nga xam ne moom mooy Gomora li yàggul dara matagul nag à 100 pour cent mais dina doon joueur bu équipe bi nga xam ne moom mooy Liverpool parce que dafa doon ay mbir yoo xamante si nii nekkut mbir bu Liverpool bëgg a parax paraxee nii aussi ci côté joueur bi mais daal Chelsea moom dinañ perte seen talent bii di Gomora dina signé fële ci Liverpool ba suba ak jàmm incha allah.